Fodé Sarr ñu gën ko xam ci Fodé bu dina ma neex wala Papa Fodé bu capital wala sax Bakir Thiam bu Baabel tey nag Fodé lañ leen indiloon yéen ñi bëgg a xam jaar jaaru Fodé fan la jaar ba toll fii mu toll tey ci théâtre topp leen ñu ak Authentique Prod Fodé nag mi ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Moundé Moundé nag ma nga ca booru Ñoojoor ca wetu Foundiougne foofu nag la Fodé juddoo waaye nag mi ngi màggee foofu ca Fass mbaaw Fass Mbao nag fa la màggee fa yaroo lu ëpp ci jeunesse am sax foofu la ko defee foofu ci Fass Mbao waaye nag Fodé ndax jàng na waaw Fodé jàng na foofu ci Fass Mbao ci école bi ñuy wax école Mambuso mu nekk école privée Fodé jàng na ba classe de mu doog a arrêté ëpp ci jeunesse am ñu bëri it ko xam foofu lañ ko xamee foofu ca Fass Mbao Fodé nag bëggoon sport bi nga xamante mooy karaté yàgg ci lool def ci ay compétition yu bari dem na ci sax ba nekk ceinture noire waaye sax ñu bari ci nit ñi xamuñu ko ci moom ndax doxewu ko te waxewu ko Fodé yàgg na ci lool waaye sax bàyyeegu ko ba léegi ndax ba léegi mi ngi nekk di def sport boobu muy karaté Fodé nag bëggam théâtre mi ngi door ci bi muy ndaw muy jamono bi nga xam ni mi ngi seetaan idolam bi nga xam ni taxaw na fu ne ci rajo yi ak télé yi wax ko muy sunu papa Golbert Diagne waaw Golbert Diagne mooy idolam moo tax mu bëgg théâtre moom Fodé Golbert Diagne nag nekk théâtre kat bu représenté fii ci Sénégal rawatina foofu ci diiwaanu Ndar Géej mu bay waaram nekk royukaay bi nga xamante ni xale yu bëri war nañ ni mi ngi ko doon bay moom sunu papa Golbert Diagne nag ko yàlla yërëm xare ko àjjana te oyofal suuf ci kawam nekk waajuru Malal Junior foofu ci TFM ak waajuru Fifi foofu ci rajo Ndar nag bokkoon na ci ay rêvam gisante ak Golbert Diagne loolu nag yàlla sottal na ko ndax ci ay bés yu néew ci fan yooyu ci la demoon Ndar seeti fekk ji Golbert Diagne waaye nag Fodé mi ngi ñuy xamal ni bés boobu noonu dootul am bés bu gën a màgg bés boobu ndax bés boobu noonu mu gisante ak Golbert Diagne am na ay surprise yu doy waar ci gisante bi mu gisante ak moom oyof bi ko Golbert Diagne wan ak dal bi mu ko wan ba noppi yendoog moom defal ko teraanga bu rëy yóbbu ko ci rajo ba présenté ko ñëpp ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey foofu ci rajo bi ba noppi toog ak moom waxtaan ak moom ay waxtaan yu yàgg yoo xamante ni di ko ñaax ci théâtre bi xamal ko ci ay secret yu baree bari Fodé na dootul am nga xamanteni mo gëna reuy a bobu lolu waral at bu jot muy sargal Golbert Diagne di def ànd ay artiste yu bari ba at bi passé 2023 bi def nako sargal Golbert Diagne ba domam bi di malal teewe won nako Fodé nak ne dotul faté Golbert Diagne mu ci dund way nak Fodé musul digok ay wajuram ci théâtre bi ndax ay wajuram dañu bëggoon mu bëggu ñu won muko mu dugg ci théâtre waye bobu bëgg-bëgg xalé dikkel nako waye nak Fodé musul forcer ben yoon ci temak mak ay wajuram fu mu tollu da daan ak ñom ak di leen xamal ni mom dafa dafa bëgg def théâtre mujj gi ay waajuram dem ba xam ni bëgg na ko mujj gi nag ñu ni ko jàng bi day taxawee kon première position théâtre bi taxawee deuxième position boo bëggee def théâtre foog nga jàng loolu nag waral mu jàppoon jàng bi ba noppi di def kon a fowee mbirum théâtre noonu nag la dem ba mujj mu ni dafa bëgg xool école yi nga xam ni dañuy former nit ci wàllu théâtre mu dugg ci looloo indi duggam Arcos bu Dakar ci atum 2008 ci la intégré foofu ci Arco bu Dakar dembalam yal nako yalla yeureum xare ko aljana ab dembalam nak mo fi bayiko ko bu yagul dara ñu ñaanal fi mu teud yal na suuf oyof ci kawam te borom bi xare ko aljana mu nek monument bo xamni ci si ken dotu ko faté nek ndanan artiste bu maga mak mag mag ci walu théâtre ab dembalam nak nek ndanan bo nga xamni ñi mu formé ñep ci théâtre ay ndanan lañuy doon moom nag moo intégré Fodé japp loxom duggal ko arko bu Dakar xamal ko lu bari bari ci théâtre jangal ko théâtre sur scène waye nit jangal ko ci côté cinéma xamal ko ci lu bari bari bari waye nekkon xaritam bu ko jegeloon daan waxtaan ak mom lu bari bari ci walu aduna waye yit doon waxtaan ak mom lu bari ci walu théâtre motax fo Fodé muni, lu bari lu mu xam ci théâtre ci Pape Demba Lam moomu ci lako xamé ñu ñëw ak yeen ci production yi nga xamni mom la fo jotta def ci carrière Fodé nag li ko gën a lancé mooy série boobu ñuy wax dina ma neex waaw dina ma neex moo lancé Fodé moo tax sénégalais yu bëri xam ko Fodé nag dugam dina ma neex mi ngi jaar ci loxo may Maymuna ndax ñoom ñëpp ñoo bokkandoo woon nekk Arcos bu Dakar bi production bi taxawee nag ci la ko may Maymuna fexe ba dugal ko ci biir série bi loolu nag moo waral Fodé dugg ci séri dina ma neex nekkoon fa nag di fa incarné role bu garaaw ndax Fodé mi ngi fa doon incarné rôle boo xam ni bi mu ñëwee daaru la noboon waaye nag dem ba ci biir mu nopp xaritu daara muy Maymuna mu bujj nag dem ba nekk natoom nekkoon série bu neex boo xam ni ku ko daan seetaan da nga daan ree ba bëgg a dee ndax série la bu nga xamante ni saa bu mosaan commencé rek mbedd yi day wéet ñëpp dañuy daw seetaani ko ba noppi bu duggaan ci chaîne YouTube yi da daan atteindre ay vie yu bare bare bari bari ndax série la bu nga xam ni moo lancé Fodé ba tax ñëpp xam ko tey ba moo waral sax foo nee Fodé ñu ni Fodé bu dina ma neex Fodé nag ginnaaw bi mu jógee ci dina ma neex ñu toogoon lu yàgg gisuñu ko waaye ginnaaw gi lañ ko gis ci benn maison de production bu tudd BM audiovisuel mu nekkoon di def benn production boo xam ni mi ngi tuddoon capital capital nag nekkoon série bu neex a neex a neex boo xam ni mi ngi doon faral di am ci koor gi waaye nag capital lu jiitu muy tudd capital mi ngi tuddoon ninki nanka waaw mi ngi tuddoon ninki nanka waaye nag ginnaaw gi lañu gis waa di def ninki nanka ñu changé tour bi def ko capital looloo waral bi Pape Barxaama bi nga xam ne moo moom BM audiovisuel waxtaanee ak Fodé ba jubóog moom indi ko foofu ci série bi ñuy wax capital mu nekkoon nag série bu neex boo xam ni macha allah dina am comédie waaye dina am ay jàngale yu am solo yoo xam ni day am ci biir série bi capital nag nekk nga xam sénégalais yu bari dañ ko bëgg ba bu duggé ci youtube bi day atteindre ay view yu bari bari bari capital nak nek série bi nga xam sénégalais yi dañ ko bëggoon lool mu nekkon ci digënté Fodé ak Papa As Papa As nak dina ñëw ak mom fan yi ci jaar jaar ñom ak seen kër ak ku xéss ki nga xam mo leen lakkaloon lool ñukoy wax koko loolu nak dina ci Fodé nak ci jamono ji mi ngi liggéey ak maison de production bu mag bobu ñuy wax Marodi waaw mi ngi fa di liggéey ak benn production bo nga xam ne ñu ko tuddé Babel Babel nak nek série bi nga xam sénégalais yépp ñu koy suivre ndax mooy mooy série bi nga xam ni day dugg ci YouTube bi léegi atteindre ay vues yu bari mooy wane sénégalais yi ñi ngi suivre série Babel bu baax a baax a baax nekk fa nag di fa incarner rôle bu neex a neex muy rôlu Bakir Thiam Bakir Thiam nag nekk taaw bi nga xam ni moo nekk ci biir kër gi ak jabaram ak fameem waaye nag duma ci sori ndax sénégalais yëpp ñu ngi suivre Babel ci jamono ji ñuy wax ak Fodé nag bu dee ci wàllu publicité mës nañ ko gis mu def spot publicitaire ak waa Punch waaw loolu nag yàgg na yàggul waaye nag bu dee ci wàllu côté clip bi, waye nak ñaka juboo xeyna moy waral du am Fodé nak budul théâtre lan mo nek occupation am bu ñu fàtte ni Fodé def na formation ci wal télécommunication waye def na formation ci wal radiophonique waye def na formation ci wal journalisme lolu waral sax jot na am site yi nga xamni mës na liggéey ak ñom ak télé yi nga xamni mës na liggéey ak ñom mom Papa Fodé tay nak fofu la yem ak yeen ci jaar jaar ñu leen di wax ni tay nak Fodé bu dina ma neex lañ leen indiloon kon nak bu leen faté abonné té colosse de notification bi té ngeen wax ñu ci commentaire auditeurs yi yéen star ngeen bëgg ñu indil leen seeni jaar jaar kon nag fi la ñu yem ak yéen ba beneen yoon ak authentique prod